asalaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV ginnaaw ba ma leen nuyoo di leen ñaanal kenn lal jàmm comme ni ñu koy defee chaque jour gi nit leen di gën a fës ci bopp xibaaru làmb laataa loolu na damay nuyu ñu ma feggool jërëjëf Ndeye Mbacke nuyu naa la bu baax a baax wante ñu ngi nuyu suñu mbokk internet yépp ñuy topp ci Leewtoo TV rawatina revue de arène bi ñu leen di amal chaque jour ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci ah, topp bi ñuy topp asal waalo maa ngi leen nuyu Ndeye Mbacke maa lay fay di am mbégte jàkkaarloo ak internetu Leewtoo TV pour ñëw dikk jukkil leen li gën a fas ci yenn kaayu làmb ji. jeudi 28 janvier 2021 suñu làmb xëy ci xëtam bu njëkk mu ne garder sa couronne égaler Balla gay 2 le défi de Modou Lô. mu mel ni Modou Lô mi nga xamante ne bii moom moo gàlloo ndomb tànku roi des arènes. wax na ñaari défi yi mu gën a bëgg ci journal bi moom mooy euh, garder couronne bi nga xamante ne bii moom mooy roi des arènes bi ndomb tànk bi ñu ko takkal nee na bëggul kenn ku ko laal bëggul kenn ku ko nangu ci moom wante beneen bi mu wax mooy dab euh, Balla Gaye ci ay victoire. dëgg la Babacar ni nga ko waxee noonu la. ginnaaw bi ñu gisee rivalité entre Carl Lewis ak Ben Johnson ci athlétisme euh, Kobe Bryant ak Shaquille O'Neal ci wàllum basket Roger Federer ak Rafael euh, Nadal ci wàllum tennis Macky Sall ak Ousmane Sonko ci wàllum politique arène bi également am nañ seen rivalité buy dox ci entre Modou Lo ak Balla Gaye journal suñu laab nag ñëw na ci kenn ci ñoom muy Modou Lo nee na am na ñaari défi ci 2021 bi premier défi bi moom mooy mu garder couronne roi des arènes ginnaaw bi mu daanee Eumeu Sène le 28 juillet passé défi Modou Lo moom mooy mu garder couronne bi te pour cela il faut que mu daane Ama Baldé seen combat bii di dox si entre ñoom deuxième défi bi moom mooy mu égaler Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 ci carrière am am na 21 victoire pour le moment Modou Lo 20 victoire rek la am pour que mu égaler Balla Gaye nag il faut que mu daan Ama Baldé pour am vingtième vingt et unième victoire am loolu la journal bi wax. Ndeye Mbacké loolu journal Lac de Guiers Eumeu Sène 4 avril mu ngi mu mel ni euh, suñu papa Gaston Mbengue euh, nee na mi ngi déglu état bi ci diggante combat boobu mu di dox ci diggante Lac de Guiers 2 ak euh, Eumeu Sène nga xamante ne bii nee na bëgg na tëgg ko incha allah bu ci yàlla àndee le 4 avril. ni nga ko waxee Babacar noonu la noonu la ko journal bi waxee Gaston dans l'attente du feu vert de l'état ginnaaw bi mu tëggee combat Lac de Guiers 2 ak Eumeu Sène prévoir combat boobu la 4 avril. nee na nag li ci des mi ngi xaar état bi mu joxe avalam pour que mu mën a démarrer mu mën a tëgg combat boobu Gaston mi ngi fay leeral également nee na forcé wul kenn date boobu nee na forcé wul te euh, siiful également day proposer rek pour que CNG jox ko date boobu mu tëgg ci combat boobu Ndeye Mbacke. Gaston mu ngi xaar état bi ancien lutteur et lutteur en activité. quelle politique quelle politique médicale pour la lutte. jërëjëf Ndeye Mbacke mu mel ni ancien lutteur yi nga xamante ni bii seen yaram dafa xaw a sutante. Mm. ku ci mel ni suñu papa Mbaye Guèye euh, ak Douba Less ak euh, papa Kane Boston euh, mel ni journal bi dafa samp laaj mu ne ban politique médical la ñu war a mëne ngir ñu mën a wér wante yemul ci lutteur yi ancien yi mm. mais lutteur yi nekk en activité tamit. Euh, te ñoom tamit seen yaram xaw a sutante journal bi nee na mi euh, journal bi samp na ci laaj nee na ban politique médicale la ñu war a mën pour ñoom ñoom seen yaram seen yaram wér. dëgg la Babacar ni nga ko waxee noonu la benn dossier bu yaatu la Abdoulaye Dembélé bu suñuy làmb def. ci affaire feebaru paa yi nga xam ne dañoo feebar nekkoon ci làmb ji ñu mën ci lisité Pape Diop Boston Mbaye Guèye Double Less ak Mohamed Ali nee na ñii dañoo feebar waaye journal bi dafa samp ab laaj nee na ban politique médicale lan war a teg pour que aider waa làmb jooju léegi nag indi na ci ay réponse nee na semi bi Tafa Guèye pare nee na 1000 Euh, ak euh, leur famille wax na également Joal Fadiouth Yékini intervenir na génn na huit millions pour jàppale nii nii ñu feebar Thiès également am na euh, cent litres yoo xam ne ni ñu ngi leen di prendre en charge. ba léegi suñu làmba ah, Moustapha Mbengue CMU mu ne le malade a une prise en charge de 80 pour cent. waaw mu mel ni Moustapha Mbengue moom joxe na ci solution ci li nga xamante ne bii moom mooy euh, ñi seen yaram sutante te nekkoon ci làmb ji wala ñu nekk ci làmb ji ba léegi ak couverture maladie universelle nee na couverture maladie universelle mën naa jël sam paj lu toll ci juróom-ñett fukk euh, téeméer boo waroon a fay mu jëlal la juróom-ñett fukk yi daal di la koy fayal yow nga xam ne euh, ñaar fukk yi rek ngay daal di fayal sa bopp. dëgg la Babacar président Moustapha moom mooy président de l'union régionale. des mutuelles de santé de la couverture maladie universelle muy 5000 moom nag li ñu fi wax mooy ne boo feebaree malade bi dañ ko jël à 80 pour cent waaye également mi ngi ciy remercier Moustapha Gueye ak Ousin Gueye ñi nga xam ne ni neena na ngi jàppale mbër yi bu baax a baax a baax ci wàllum seemi boobu lay mbàkkee. ba léegi ci faj mi Bira Sène président du CNG mu ne par solidarité le CNG pourra aider ses acteurs CNG mën naa dimbali ñi mu mel ni euh, président Bira Sène moom mu nekk président CNG moom nee na euh, amul benn euh, amul benn programme pacifique ba nga xamante ne bii teg nañ ko pour jàppale leen wante war nañ leen war nañ cee mën a def ndimbal pour ñi nga xamante ne bii ñoo tawat daal di jug. dëgg la toujours ci même question bi Bira Sène def ci intervenir moom nee na CNG amul benn programme spécifique boo xam ne teg na ko pour jàppale ñu feebar ñooñu waaye nag nee na. ñu ngi xool nan la CNG bi war a génnee benn ndimbal pour jàppale ñi nga xam ne nii dañoo tawat nekk ci biir làmb waaye également nee na euh, war nañ teg benn programme boo xam ne nii dinañ ci invité écurie yi pour que bu euh, ñu def ay plan yoo xam ne nii ku feebar écurie yi war nañ mën a dugal seen loxo ba jàppale kooku feebar Babacar. suñu làmb lañuy des ba léegi Moussa Ndoye mu ne Moussa Ndoye daa instant bi daa pare pour bëri ki nga xamante ne mooy amal ne le requin de Yaraax waaw noonu la ko journal bi waxee Moussa Ndoye moom nee na pare na pour euh, jàkkaarloo ak ki nga xamante ne moom mooy ama neex te nee na combat boobu combat bu neex amateur yi lay doon combat bu neex ak lu làmb lay doon ndax seen combat ñoom ñaar cin luy baax lay doon lu am benn ruq buy sedd. noonu la ko journal bi waxee. Moussa Ndoye nee na combat combat ak ama neex. combat régal la combat boobu nag Xaadim Samba soxla na ko mais Moussa Ndoye nee bu bëggee so euh, combat boobu na dem seeti ménagère am mu tëgg combat bi ñoom suñu d'accordee même bu dee 1000 francs la Moussa moom nee na pare na pour jàkkaaru ama pare na pour jàkkaaru ama neex ndax combat boobu yaakaar naa ñëpp ko bëgg Reug Reug remercie ses fans bi nee mu ngi sant fans di gërëm ñëpp ñi ko je ñi ko dimbali ci combat de près ou Euh, jërëjëf Ndeye Mbacke noonu nga ko waxee noonu la Reug mu ngi sant bu baax a baax euh, fans yi ak euh, amateurs yi rawatina sénégalais yi nga xamante ne bi bi mu nekkee fële ca New York ak Singapour ñu ngi ko doon ñaanal bu baax nee na ñaan yi yegg si na mu ngi leen di sant di leen gërëm. ni nga ko waxee noonu la ko Reug Reug waxee ci journal bi Babacar ginnaaw bi mu gagné Pierre Alain yi vendredi bi passé sa Singapour. Reug Reug nga génn na remercier sénégalais yi nee na ñaan yi gis na ko. mi ngi leen di remercier bu baax a baax a baax noonu la ko waxee ci journal bi Ndeye Mbacke. ci la jàll yi dem ba États-Unis fekk fekk fekk nga xam te ni mooy Garga Mbossé ak ki nga xam te ni mooy Ramdan nekk fa seen entraînement yu métti dem nañu waaye fàttewuñu làmb nee nañu. mu mel ni ñoom ñaar ñoo bokk di entraîner. Garga Mbossé ak euh, Ramdan nekk fële ci États-Unis wante Ramdan moom euh, ban ko gëjee gis ci làmb ji boobaak léegi def na ñaari at asan mm-hmm. wax nga dëgg Babacar noonu la demee gar euh, Ramdan ba mu jógee Sénégal dem États-Unis ba léegi am na ñaari at waaye boobu ba léegi bàyyiwul boppam mi ngi entraîné waaye il a de cela un mois nag Garga fekk nag ci états boobu journal bi li ñu xamal mooy ñoom ñaar ñoo fa nekk di contact nekk ci salle di entraîné pour que Garga a exactement ci eh, carrière bii nga xam ne ni mi nga war a am combat ci eh, saison bi di ñëw nee na nag ñu ngi préparé bu baax a baax a baax ñoom ñaar ñoom ñaar ñoo fa nekk di préparé loolu la journal bi wax. loolu la wax Sidi Diakhaté un promoteur à encourager loolu suñu lamb xëy waaw mu ne Sidi Diakhaté mu nekk la ca Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar eh, nga xamante ne bii xale yi nekk Thiès yëpp moo leen di tëgg. moo leen di wane journal bi nee na war nañ ko encourager war nañ ko war nañ ko jàppale war nañ ko encourager bu baax a baax ndax moo nekk Thiès kaay di lañ jàppale. dëgg la Babacar ni nga ko waxee noonu la Sidi Diakhaté journal bi nee na c'est un promoteur à encourager moom nee na comme euh, Serigne Modou Niang Sidi Diakhaté benn promoteur la boo xam ne nii day détecter ay talent nee na Thiès ku fa dégg daali war nga ko remercier war nga ko gërëmee Sidi Diakhaté moo fa nekk di tëgg combat mbëri Thiès yi te loolu war na ci dégg war na mérité na ñu encouragé ko. Sidi Diakhaté Diakhaté Kaba Yeri. Kaba Yeri waaw mu mel ni doomi Papa yi ku ci mel ni euh, Cheikh Kane ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, ku ci mel ni. Ahmed Kane ñoom ñett gisatuñ leen te Olof Ndiaye dafa am lu mu wax Olof Ndiaye dafa ne ku juddoo ci bisaab màggee ci Dakar kenn war kenn waru laa laaj forox ndax toll nga war a def mi ngi noonu. dëgg la Babacar les héritiers de Papa Kane désertent l'arène noonu la ko journal suñu làmb waxee nee na kii di eh, ñetti doomi Papa yi maanaam Cheikh Kane Ndiaye ak Ahmed Kane daal. kenn gisu leen gën kenn gisutu leen ci làmb ji alors que amoon nañ ay début yu baax ci eh, arène bi surtout am Amet Kan nga xam ne nii ba muy doog a démarré remarqué woon nañ ko bu baax a baax a baax ci làmb ji waaye ne dem na benn moment boo xam ne nii kenn gisu ko te loolu jaaxal na journal suñu làmb moo tax muy laajte ñii fan la nekk. loolu la journal suñu làmb xëy samp laaj looloo nekkoon li gën a fas ci xanaa sant suñu mbokk yépp yi ñu doon euh, seetaan rawatina di sant Assane euh, borom dëgg la borom lingeer maa ngi lay kontaane bu baax a baax sama lakkal bi ndey mbàkk sant naa la gërëm naa la <laughs> mais tey sa rob bu baax na macha allah ku la robal sa greffage bu baax <laughs> kontaan bu baax a baax waa Diourbel sama dëkk du ma leen fàtte maa ngi leen di jaajëfal di leen wax ne gis naa ñaan yi jaageen jëf jaajëf euh, Mbaye Babacar jaajëf Ndeye Mbacke comme d'habitude di remercier waa Linguère di jox euh, rendez-vous demain incha allah internet wu TV yi jaajëf mbokk yi jaajëf ñi ma toogal kontaan naa bu baax di jaajëfal équipe Leewtoo waaw daa wax ci robe bi bàyyi sama robe bi di jaajëfal équipe fi nekk ak ñi fi nekkul yëpp suñu infographie maa leen jaajëfal internet yi duñ leen fàtt ndax yéen tax ñuy toog fii gis nañ commentaire yi ak encouragement yi kontaane naa bu baax Modou Mansour suñu chauffeur boobu noonu lu mu dawal rek baaxul kontaane naa ko bu baax a baax a baax di bëggee waa parcelle fa ma jógee nuyu naa ne dañ jox di daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV